ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne fi ngeen teg seen tànk foofu la. tey bu ñuy ràññee ay dëkk ci Afrique dinañ jël dëkk bu mel ni Rwanda ki fa nekk di président Kagame yàlla may ma ma xamante président Kagame waaye président Kagame ñaar fukki at ñaar la def ci réew mi balaa nit ñi di commencé dégg euh, Rwanda balaa nit ñi di di dégg Rwanda ngi jëm kanam ñu nag yàlla may ñu. président Macky Sall def fi juróom-ñaari at foo dem ci àdduna gi boo ne Sénégal laa jógee ñu ne ah li ñuy dégg ci Sénégal de euh, dalal na xel ndaxte dégg nañu ne président Macky Sall ñu koy def liggéey bu jéggi dayoo juróom-ñaari at la état dafa metti yore état dafa metti yore état Afrique dafa metti état astamaan nag Sénégal bi nga xam ne xëy na. balaa ay président Macky Sall di ñëw amuñu fi woon benn ressource boo xam ne mun nañu ne ressource boobu mënoon nañ ko utiliser pour gën a mun a avancer loo dëkk bi. donc li ñu amee ku mel ne président Macky Sall tey mu ñëw ci euh, nguuram ñu gis fi pétrole ak gaz président Macky Sall ñëpp xam nañ ne li mu jàngal pétrole ak gaz la. tey pétrole ak gaz bi gis nañ ko waaye génnagul produire guñu ko.

président Macky Sall la ñu war a falaat falaat ko premier tour ci 24 février bi mu yore ko pétrole ak bi moom xam na nu mu koy defee ñu jàppale ko ci Sénégal jëm kanam président dafa tënk li ñuy wooyee plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent nag mooy plan bi nga xam ne 2015 ba 2035 moo ñu indi fi ñu war a nekkee dëkk bu ñuy wooyee émergent dëkk yi émergent nag ci Afrique bëriwul président bi xalaat ci ut ay nit nitu ñu am xam-xam ñu tëral plan bi def ko mu daal di daal ci tàmbali liggéey bi ñu demee ba première phase bu bi jeex mu ne léegi nañu dellu ut koom-koom pour defar deuxième phase bu PSE bi ni ñu ko xam nga ut koom-koom ci àdduna dafa metti président nag neen léegi yéen ñëpp jóg leen suñu ministre yeeg euh, directeur d' agence yeeg privé bi secteur privé bi yàlla boole ma ci secteur privé bi ñu ànd pare ñu ne woon 3 milliards d' euros la ñuy seet waaye bi ñu xoolee bailleur de fonds yi muy banque mondiale muy FMI muy dëkk yu mel ne France muy dëkk yu mel ne États-Unis ak ñeneen ak ñeneen ñu ne yow ni nga yore dëkk bi ni nga yoree Sénégal ni nga yoree alalu dëkk bi

ne dinañu fi defal autorail dinañu ko dekkee man am naa ci lu ma ci leer financement bi ñuy war a def ci autorail bi dafa taxaw nit ñi nañ ko war a xam financement bi taxaw na président bañ na ko ba bi muy demee Thiès bi mu jógee gée ngi dem dem Thiès daf leen ne avril dinaa ko dekkee avril benn weer a ci des waaw keneen ku ñëw nag dinañu wax tamit ne ñoom tamit mën nañ mën nañ def autorail bi ndax dañu xam ne autorail dafa sax ci waa gée ngi keneen politicien bu nekk dina ñëw dinañ ko wax man mun naa leen ne président li muy wax daf ko tëral ci lu leer ndax études yi pare nañu euh, partenaires yi taxaw nañu président moom moo moom rek moom moo des ci moom la des mu ut kan ci partenaire yi moo ko doy koom-koom bi taxaw na signé nañu sax li nga xam ne mooy financement wu kii bi ñun nag gi ngi ne bu ñu dekkal suñu suñu autorail bi ah ñun de taal kii pare nañu ci yow du dëgg donc dama bëggoon ñii nekk fii yéen ñii waa Guinguinéo ci lu leer ci 24 février ñu delloo njukkal président Macky Sall jox ko mu eggali yéene bi nga xam ne am na ko ci Guinguinéo ñu mun a defar suñu Guinguinéo bu ñu paree nag ci présidentielle yi ba jox ko majorité bu leer fii ñu daal di songu local yi. ñu mun fi taxaw man wax naa ko dinaa ko waxaat dama bëgg mairie bi nañ ma jox mairie bi ma liggéey waaye dama bëgg liggéey président Macky Sall yore mairie bi président Macky Sall yore dëkk Sénégal ñu mun a dekkil kay ngi neew nit ñi gis ci seen bopp. loolu laa amul lu may wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm na ñëpp fagaru maa ngi laaj sama cellule yëpp nañu jóg. ànd ak coalition bi bu dimanche nañu jox jox président Macky Sall 70 pour cent fi jigéen ñi ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.